ci bunt ba képp la yem ci taq itam dañ noo digal rek loolu ñaari waa yàlla yi nag moom bu fekkee takku ci du aajo raxasaale waaye bant soo it moom dañ noo digal raxas gi doon ci sax takku ca na ca boole yéene itam moo gën a wóor ndax ndegam ca xañ loolu ku yebu boole ci yéene wal mas yu mas yu am ndox la xaariju mu di aji génn bi nazare ci sababu xool wa bi tafakkuri ak ci sababu xalaat li la votin ngir bànneex zuxara bu gën a ndawe machine moom nee na ndox mu weex la moo xam day génne ci sawukaay góor gi bu fekkee ne góor gi am na bànneex bu ndaw bànneex bu ndaw mooy bu àggul ci jote nga xam ne daal da ko doon da xalaat jigéen mbaa muy foog moom mbaa mu ko xool xool ba yàgg ba ab sawukaayam jóg nag gannaaw ba nag ndox mu weex moom mën na caa génne tudd masiru façon li ab dog la ma maa ci la nga xam ne yëm naaw def na tere fii am lu foo defam nga bi xëy na woo doon ci dul njàpp day bëgg li nga xam ne bu fekkee ne jàppoo doo ko sañ day araam nga sangu def ko laysa li xayri mutawaddiin dee di ñeel ku dul aji jàpp salaatun julli wala tawaafu bayti man du ci ragee wër néegub yàlla mi nga xam ne yool yi dana méngale mooy dana joxe may maye nee na bu fekkee ne jàppoo te la la jàpp ci sa coobare la doo sañ a song julli genn julli moo xam farata la moo xam naafile la doo sañ a song wër kaaba moo xam wëruk farata la moo xam wëruk naafile la kames si mushaf yi nit ki te waxal ne aw jildin wala aw der la xoo ñeel kaamil ba bi woo di moo xam bant la koy laale aw bi saw bi wala ci malaan aw nax win wala lu niru la xoo ko ba tey nee koo xam ne jàpp te la ko tey jàpp ci coowareem la du sañ a laal ab kaamil du sañ a sax der wa nga xam ne moo ëmb kaamil ba wala fegg wa moo xam bant la koy laale moo xam malaan nit laful bëm mbaa musuwaar la koy laale déedéet bu ñu ko nee bul ko laal sa loxo bu mu defee ne mën na ko laale bant mbaa musuwaar mbaa dara leneen déedéet laakin na masal jus waaye nag laalu xaaj man ka nga xam ne taaxal la ma xam xamlu na fii ca xaaj ba faq dong jiw sa daganaleef na ko indal xolama fooy xam ñaar waaye may nañ ne bu fekkee da jàng bëgg a ci misaal mbaa nga mokkaloon man dalaa fëtt nga bëgg a dellu si mokkal nga jukki ba nga xam ne ca ngay jàng rek moom daañu la may nga di ko laal di ci jàng te fekk na ameewoo am jàpp ba tey rek nga ko ne bu fekkee ameewoo am jàpp waaye safaratu mooy tiimit boo tiimit rek mu daal di wecci njàpp hmm. waaye nag xaaj ba nga xam ne ca ngay jàngi rek mbaa nga ci jàngale ba te noonu la boo dee jàngale noonu la ba tey da nga mën a laal jukki ba nga xam ne moom la koo yor di ci jàng ki ngay jàngal jukki ba mu yor mën nga koo laal yow mi koy jàngal moom it moom ci jàng man na ko yor te fekk yoru leen am njàpp wallahu alwaja kal kitaab mi ngi mel ne téere ba fit taxarimi ci araamal ga li xëyri vidéo booy ñel kudul boromam njàpp yaa xam yi mi ñoo sama xarit nee na boo déggee téere bi alwajir noonu la alwajir bind alquran doo sañ a jekki-jekki laal ko te andiwoon njàpp lu may nga cay jàng mbaa nga cay jàngale boo ci jàng mbaa nga cay jàngale moom mbaa ngay toppal kay beqi yooyu yëpp mën nga koy laal moom may beq beq itam mën na koy laal te fekk na jàpp leen moo tax mu ne laakin waaye yoo joos na dagan li la si ñeel ka nga xam ne yoxan la mu def na ko jàngal dana dagan ci moom masun laal kazaliki ni mu saxixun aj wéral mu àllimun kuy aji jàngale kay jàng ci àlluwa ja mbaa mu cay beqi ak ka koy ak ka ko cay jàngal di ko defaral ak bindal yooyu yëpp mën nañu laal àlluwa ja te fekk na yoruñu mu jàpp wa masu sibyaan laalub gone ya bi najaasati ànd ak sobe kam masatu kibaar yi ñu ne laalub mag ña fil xisiyaani ca mooy ga gone dañuy wax ne moom araamut mu laal alquran te fekkul mu jàpp kon am nañ coow ak sib rek booy jàng al muqaddamatul hisiya day wax ne daañu sib ci gone yi ñu laal alquran te fekkul ñu jàpp kon ñëw ak sib rek la fi mu toll nag mooy gone gi taq sobe ba noppi nag laal alquran sobe soosee nag moom moo koy tax aay lool ba mel ne kon laalu mag alquran mag laal ko ànd ak sobe kon mook gone laal ko te fekk ay loxoom taq sobe ñoo yemoo ci lu ci nekk lu araama araam la lu mata moytoo moytu la léegi nag boo gisee ay loxoom amee sobe te ay woo nag nga seetaan ko ba mu laal alxuraan li njëkk waxagu nii moom mooy gone yi laal alxuraan ànd seen loxo taq sobe moom mag laal ko ñooyee moo ci mooy waaye nag gone xam nga kenn tàmbaleegu ko bindal bàkkaar kon ana koy gàddu bàkkaar ba mooy laakin ma ismu waaye bàkkaar ba xalal mun naa wili war na aji jot li ja falaatakun bul nekk mu naawi leen di aji jottale yaa saa ili yow sama aji laaj yow mu bàyyi gone gi mu laal loxoom takk sobe yaa ko jox sax alxuraan ji fekk loxoom takk sobe yaay kàddu bàkkaar ba yow mi mag waaye gone moom kenn tàmbalee gu ko bindal bàkkaar wa man yusalli kuy julli bilaa tuhrin ci ak laab abadan faaw bilaa daroorit ci lu dul lor fa bu fiskin borom caay-caay la ba daa ko feeñ na ñene koo xam day jekki-jekki rek di julli noonu te du laab laab ga ca war mel moom bu fekkee jàpp moo ko war du jàpp ko sangu farata waree du sangu farata day jëkki jëkki rek tiim noonu te fekk na farataam du woon tiim ndax amutoon gànt kooku dañuy ba xam bu fekkee ne taayal rek tax kon moo ko taayal a julli ñoo yemoo dañ koy digal su bañee ñu topp ko bu mujj rey ko ci nañ ko rey woon ci ku taayal a julli su fekkee ne moom daa wax ne daa gëmul ne laab lu war la moom weddi waru julli ñoo yemoo ba tey dañ koy tuubloo ne ko dangaa murtat tuubloo ko diiru ñetti fan su fekkee ne tuub na baax na bu tuubul nag ci juróom-ñetti fan ñu rey ko kooku nag ndegam na lay def rek di julli te du ànd ko laab ga ca war te amul ci ngànt saay-saay la boo xam ne lee lañ koy fayee ca tiim ba mooy lay sa loxo di di ko ñeel bi zaalika tayamu mi ci booba li tiim yowul xiyaamati bis penc si waa jahannam yi ndare sawara jahannam ah tiim boobu a tiim boole ko ci faye ndax mel na ne dafa song waaxu di julli te amul laab ga ca war te loolu araam la xam nga ne ahadana yàlla na nu musal allahu yàlla minal xusalaani ci ak perte wa charri iblis ak ay iblis madal asmaan diirub jamono ya fañaan yàlla musal na ci perte musal na ci ayu seytaane faaw faaw faslun li ab dog la fii ahkaamil xusli ci àttey cangaay wa moo jibaatihi ak way waralam woo ma ak la nga xam ne yata àllaqu dana aju bi ci moom day wax nag sangu farata ak la koy waral ak àtte yi ci aju yajibu dana war xuslul faridati cangaayul farata bilam tiraa in ci lu benn werante min talaatat asiyaa ngir yetti yëf na cangaayul farata am na yett yoo xam ne moo koy waral aan yi danaa jublu janaabatan janaaba wa xaydan ak jeexuk mbërëg wa nifaasan ak jeexuk wasin mbërëg deret la joo xam ne jigéen di koy génne daanaka ci weer bu nekk ci coobare yàlla bu ca tolloo te ambut nga xam ne moom wérit du ko waral yàllaa ko bind rek nifaas nag mooy deret joo xam ne am dooma ko waral ko amee janaaba nag sangu farata war ko ba tey jigéen bu amee kenn ci yaar deret yi ba deret ji jeex ba tey sangu farata war ko bu njëkki janaaba amal janaaba ndaal janaaba fa tuqaasu def na ko xiyaas xis may ni mbir mu muy ñaari xaaj nee na janaaba mën nga koo soppi ñaari wàll fa awalun aji jëkk xuroo juhoo muy génnuk man yu min rajulin tukkee ci góor bi lazzatin ànd ak bànneex moo taa datin bari buñ baaxoo fal taqil na nga xellu fii naw min moo xam ci ay nelaw la aw yaqazatin walla ci yeewu jimaaxan ci ak booloo aw xayrahoo nag moo gën a yell ci jimaaxan ji bu àndeek moom aw xayrahoo mbaa ci ludul ak booloo min xubulin bàyyi ci xubul muy sawukaay ijimaaxan ci dajek fóore nee na xeetu janaabu bu jëkk bi mooy man yu génn ci góor mbaa jigéen te ànd ak bànneex ba nga xam ne moo ko baaxoo na génne waaye nag jote amul diggante góor a jigéen sababawul ci jote mën naa daal ci xool bu yàgg wala laalante ci yaram ak yu demee noonu waaye ci dëgg-dëgg moom jote waralu ko bu fekkee jote moo ko waral moom daañu ko wax léegi ci bi ci topp kon nag saa yu góor gi génnee man yu tam ànd ak bànneex tamit bànneex ba ko daa génne ni ki daalante ci yaram doonte jote amut waaye laalante ci yaram moo ko génne mbaa xool bu yàgg mbaa xalaat bu yàgg yooyu yëpp sangu farat na ci war waaye nag bu génnoon te amut ak bànneex ni ki jiit wetu ko rek mu daal di génne mànn yu kon dana toj njàpp rek ak raxas ko taq waaye sangu farat du ci war ba tey bu ànd nag bànneex waaye bokk ak ba ko daan génne ni ki dafa jurgóotu rek ci noppam am ca bànneex mànn yu génn kooku boobu bànneex ba tey daw ko génne ba tey boobu dana toj njàpp rek ak it war koo raxas waaye sangu farata waru ja te sax biñ koy takk ci bànneex mooy bu fekkee kooku nelawut waaye bu dee nelaw moom duñ ko takk ci bànneex ndax xam nga kuy nelaw du yëg dara daanaka mën naa génn ci nelaw te du am bànneex kon nag bu dee nelaw moom duñ ko takk ci bànneex bu géntoon yeewu rek gis noonu mu génn ci moom te yëgutoon waxtu mu génn ba ci yëg bànneex mbaa dara yi du tee sangu farata war ko waaye nag bu dee ci yeewu moom te du ab kon faaw dañ koy takk ci mu ànd ak bànneex tamuy bànneex ba ko daa génne boole ci waxtaani ñaareel bi maxibul xasafati mooy fàddu bopp sàkkara fil farji ci pay walaw bilaa ci maa in ak doonte ci lu dul génni ndoxu mànd wi la faxri fa na nga xam xeetu ñaareelu janaaba bi nag mooy góor gi nga xam ne mukallaf la bopp sawukaayam dem ci awray keneen keneen kookee mën naa doon góor mën naa doon jigéen ndax mu def ko ci bunt suuf ba ak mu def ko ci soo sowukaay ba ñëwee moo dong lu mu ci mën doon rek sangu farat na war mu am ca bànneex ak mu ñàkk am bànneex yam loola dund ak loola dee moo ci yam bu ñu nee nag fàddu bopp sàkkara ba kese maanaam booba rek bu duggee sangu farata war kon jëlal nañ lu weesu bopp ba dugg ni kii lépp dugg waaye booba rek bu xasee dugg rek ci noonu ñu ko waxee sangu farata dal di war wala mu yëkkul nekkul nag xuslun cangaay xalaa man di war koo xam ne muxtalimun aji gént la fi ruqaadi ci ay nelaw wala mu yaxruj te génnut min ci moom layaadun dara nee na koo xam daa gént nag di jote jote boobu muy diggante góor a jigéen nañu jotee mu yëg ne doon na ko def ci gént gi waaye ba mu yeewoo gisul dara génn ci moom dara taq ko kooku sangu farat waru ko dara waru ko bu dara génnoon nag sangu farata war ko wa man yajid ku fekk ci saw bi ci malaan yaa bisal man yi aji woyu man yu walam yekkunte nekkutoon yadri di xam waqta isaabatil man yi waxtu jotug man yu wa te taxara kon mu sangu wa ahaadate mu baamu masalla lam julli woon min nawmatin tàmbalee ci nelaw xat kaano yi nekkoon na daaru xaadin di boroom ak yàndoor fii la def waaye fiihaa moo gën a yàlla ci min nawmatin ji fiihaa ca moom nee na ku ci ay yéreem mañ yu mu wow mu daal di xam ne dangam ci ay yéreem la nekk moom ci moom la génne waaye taxul nag mu xam waxtu mu génne ca moom kon day jàpp ne war naa sangu farata daal dem sangu farata seet nag nelaw yam mujj nelaw te loolu xaj ca boobaag léegi jul gu mu ci jul rek mu dellu ko baamu niki moom bu fekkee ne guddi gi ñu weesu la gëj a fàttaliku fu mu fi nelaw nelaw yu diis loolu xaj yoo xam loolu xaj na ca mu xaar ba takkusaan ñu ne ba julli ba noppi door ko nemmi ko ci boppam kon day dem sangu farata ba noppi nag léegi kon day dem sangu farata ba noppi nag daal di julliwaat suba julliwaat tisbaar julliwaat takkusaan ndax waxtu yi may waxe fi mu toll fekk nañ julli takkusaan ba kon nelaw yam mujj nelaw rek te loolu xàcce rek moom lay seet lam fa julliwaat gannaaw ba rek gannaaw bu sangoo ba noppi mu baamu ko faslun li ab dog la fii faraidihi ci farata yi cangaay ci ay farataam mooy ci faratay cangaay amal faraidu ndaal farataya fa niyatun mooy yéene la daa shuruhi fa tàmbaleem nga seen bokk na ci booy wàññi faratay cangaay say boo tàmbalee ci yéene ja mooy day yéene joox faratay cangaay gi moom nag bu dee rek bu ko neex daal di yéene fi saasa ndax mboolem li feeñ ci deru yaram moom raxas ko ak sa loxo ak ndox dafa nekk farata moo tax kon nag booy tàmbali bu la neex daal di yéene fa saasa tawrun akuk gaaw dañ koy firi gaaw rek waaye mooy almuwalaatu ak sësale maanaam boo xasee tàmbalee sangu bul ko dagg di waxtaan mbaa ngay faj seneen soxla ba yàgg nga door ñëwaat bëgg a jàll loolu boo ko defee la nga defoon yàqu nga war koo tàmbaliwaat ndegam yaa ko tey bu fekkee fàtte la nag moom la nga defoon dina baax wa dal ko akuk ragg at ba raaguk feeñ na ragg gi mooy bomb gi maanaam boo sottee ndox rek bàyyi te fekk nga mën a raxas mbaa nga rek bàyyi te fekk nga raxas ba tey du baax te aajo ñu bomb ko su maaw moo mun topp matale liggéey mi xil jasadi ñeel mboolem yaram wa bi mutlaq li ci ndox mutlaq wa imraaril yadi ak rombale loxo ba bokk na ci faratay cangaay mboolem liy feeñ ci der yaram yépp rek ndox ak sa loxo àggu fa xam ne boo raxasoon fay bàyyi fee du doy faaw rek yaram wi lépp dafa war a daj li feeñ ci dëru yaram wi fu nekk ndox ak sa loxo àggu fa ñu bomb ko kon matale gi mboolem yaram wi farata la kon nag booy wàññi faratay ci ni mu ko andi da ngay wax yéene muy benn dajal mboolem yaram wi fépp ci ndox ak loxo mooy fenn fu ne ndox ak loxo àggu fa muy ñaar ak sësale gi muy ñett bomb ak bomb gi mu daal di nekk ñeent façon li ab dog la fii sunan yi ci ay sunaam sunanu hoo sunaam yëpp too àddu def na leen lim misal faraid kem farataya arbaxatan ñuy ñeent aydan ba tey la daamoon fa ka nga xam ne xadd naqade gëstu na xam-xam yenn sunna yi ñeent lañ tolloog farata yi ci ni ko borom téere bi wàññee raxas lu mooy sa raxas yi day ñeel yaari loxo ya dil ko waxee ni ba ci ñaari tikku jara ya mis na wu booy ko kem sam njàpp bi xëyri may liñ ci dul fen bi ci jëkk mooy booy tàmbali nga raxas loxo yi ñetti yoon ba fa ngay takk montar ba fa takk jara bu dee jigéen na nga ko daan tàmbalee ci njàpp rek noonu ngay tàmbalee cangaay loolu sunna la mab mabatun ak galaxndiku min qablil istinshaaxi ci njëkk saraxndiku wa masful ubnayni ak masa ñaari nopp ña bila shiqaaqi ci dul ŋaayoo mooy ci benn wuute rek amul ak wuute ci diggante borom xam-xam yi ko sunna la ci cangaay saraxndiku sunna la ci cangaay massa bën bën nopp yi nag waxu nopp moom lay bëgg a leeral léegi muy aar ni danaa jublu simaaxaka sa bën bën nopp di kasri ci kasara saad gi maanaam simaaxa lay wax naa boo koy bind saad gi da koy maas ci suuf maas ko yett loolu moo tudd kasara waxoo moom nag faq bun bën bën la baa baadin bi aji feeñ fii ra si ka ci sa bopp day bañ bu dee masaa ñaar noppi nga defee ne daa yem ak njàpp nga xam ne li nga mën a jàpp ci nopp bi da nga koy masaa rek bu dee ci cangaay mu doy déedéet da wan ne la bon bon ba ci biir nga loqar ci ko bu dee cangaay mooy nekk sunna nga wàññiwaale ko moo galax ni ko ak sarax nit nga xam ne yooyu yëpp ay pax lañ ci yaram wi paxum gémmiñ gi paxum bakkan yi paxum nopp bi nga ñeenteele ko ba ngay tàmbali raxasu xoy ñetti yoon ba ca tikku jaree nee day firi bën bën nopp muy bën bi nga xam ne moo nekk ci nopp bi nopp bi nekk ci sa bopp bu tekki nag wa saxfatul udnayni ndabul ñaari nopp ña xas lu maa raxas la nga xam ne zahara feeñ na min ha ca moom wamaag la nga xam ne battana biiri na yoon tabaru def na ko xalam xàtt man mbir mu muy aji war nopp li nga ci mën a jàpp mooy ndabal noppali loolu wax ne moom mook sa biir ak sa dënn ñooyemoo képp a raxas si biir dënn ci booy sangu farata noonu nga war li nga mën a jàpp ci sa nopp kon bën bën ba lay wax rek nga loqar ko mooy sunna al fadailu lii moo di ngëneel ya am al fadailu daal ngëneel ya faxaaga jàppal xaddaxaa seenub lim tasmiyatan te moo di wax bismillahi kama mada naka mu wéye woon bokk na ci ngëneeli cangaay booy tàmbalee sangu wax bismillahi nam doone woon ngëneel ca jàpp noonu la doone ngëneel fii cangaay ba ba'daha nekk na ci gannaawam badu isaalati najaasatika njëkk dindi sa sobe su ma xasul topp raxas li dakkari ñeel sàkkara tattan wi te nga yéene alfarda farata ja tàmm foofee su ma tëb tëb yi topp nga tàmbali jawaar yi xel doy cëri njàpp ma bi marratin ci benn benn bokk na ci nga li ca nga njëkk dindi fu la sobe taq boo njëkkee dindi fu takk nga njëkk a jukki li tàmbalee jumbax jëm ci bunt suufeeg sowukaay bi te boo jukki diggante boobu nga teewlu waale foofu yéene ji boo jukkee diggante boobu nopp nga laa jàpp nag jàpp benn benn loolu lépp nga ne la ndax boo wutee ndox mu baax rek fexe ba yaram yëpp daj fenn fu nekk rag nga ko ak sa loxo rek mu daal di baax kon jàppal ne ca gaayu farata moom bu la sangul boo amee ndox mu baax fexe bu fépp daj bàyyiwoo fenn rek sa jaan wàcc na waaye nag ni ñu ko tegalee nga ñu croisé say loxo ñetti yoon ba ca fa ngay takk montor waa ah, fa takk jara teg ci dindi fu la sobe taqoon njëkk a jukkeel tàmbale jumbax jëm ci buum suuf beeg sowukaay bi te yéene foofee joox faratay ca ngaay li boo noppee njàpp njàppum benn benn nga xam ne leen lu nekk benn nga koy def waaw nañ ko lépp nga neen la soo tegalee na ko sëñ bi tegale woon ci tëtaw di si xaar te moo gën nag kon njàpp benn benn ba àggal li nga njëkk def mooy raxas bopp bi moo cay topp ba raxas bopp bi jàllee nga teg ca raxas noppam ndeyjoor teg ca raxas noppi càmmooñ teg ca raxas baat beeg dox gi teg ci wetuk ndeyjoor ba ci bëti woom ya teg ci wetuk càmmooñ ba ci bëti woom ya àggaleen lu tàmbalee ci wóom ba jëm ci dajar ya ci tànkum ndeyjoor ak bopp càmmooñ teg ca raxas gannaaw ga mujj nag raxas biir ak dënn noonu lañ ko tegalee woon ci tasoo du sixaar doon nag moo gën waaye teewul moom ni ma ko waxee rek noo sangoo ba mu daj rek mu daal di baax bu bàyyiwul fenn rek baax na min a ahlal jasadi ci njëkk gën jaa kawe yaram wa loolu beneen ngëneel la bokk na ci ngëneel yi cër bu ne boo ko dee raxas nga tàmbalee ko ca kaw mu jëm si suuf ne bu de wet ndeejoor nga tàmbalee ci mbagg ma mu jëm suuf wetu càmmoñ noonu bu dee tànk yi nga tàmbalee ca wóom mu wàcc jëm suuf moo gën ngay tàmbalee ci suuf nga yéeg jëm kaw wa sallisan na nga ñetteel ar sa bopp la doxati saalin fa ak sangu bokk na ci ngëneeli ca ngaay nga raxas bopp bi ñetti tànk bu fekkee ne sa bopp bariwul kawar mbaa nga yorum ñel moom nga xam ne boo raxasoon benn sax mu doy du tee sopp nañ te bokk na ci ngëneeli nga raxas bopp ba ak ñetti tànk waaye nag nga leeral foofu ne bu fekkee ne sa bopp daa sëq lool mbaa nga léttu ko ba nga xam ne ñetti yoon yi mënu koo dajalit faaw rek nga jàll dafa def ndox bomb bomb ba kawar gépp tooy mu jàll ba ci doru bopp wa wala mënu caa ñàkk waqaddimte nga jiital aljumna ndeyjoor ba xala chimaali ci càmmoñ ba lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ rek taamu nañ nga njëkki ndeyjoor mujj càmmoñ niki bu dee ñaar nopp yi dee ñaari loxo yi bu dee ñaar wet yi dee ñaari tànk yi yëpp rek jiital ndeyjoor mujj càmmoñ wa faddilan na nga gënal taqalila maa in néewal am dox doona xaddin ci dul limite mooy ci dul yemukaay al jawaari ci cër la daa xas lil jasadi faraxas yaram wa wala nga ne fa sang yaram wa bokk na ci nga neeli ca ngaay ndox mi nga bañ koo yàq def lu yem rek waaye nag néewal googu def lu yem sàkkaluñ ko ab limite ndax ndegam nit ñi yemuñu dafa am ñu tuuti am ñu rëy am ñu seen yaram nooy am ñu seen yaram ñagas dañuy bàyyi kenn ku ne la yàlla ca moom rek xam na ko na def rek lu yem te bañ a ëppal mooy ngëneel la kon nag bu dee ci njàpp it noonu la ngëneel la foofa itam wa kullu man képp koo xam ne nasiya fàtte na lum xatan ab déneer muy ab digg rek bu tooyut aw xudwoon wala ab cër fal yekku na nekk mu baadiran di aji gaawe lil xas li ñel raxas ga xis na nga xiyaas yii na isin ci waxtu woowee yene bu fekkee ba ngay sangu da nga caa fàtte ab digg boo xam ne laaloo ko mbaa boog cër lum boo xam ne laaloo ko kon saa yoo ko fàttalikoo fi saasi saas nga daal di gaaw dem defi ko boo ko defee rek mu daal di baax suma axaari topp mu baamu nag kullama lépp loo xam ne sallaahu julli woon na ko xabla xas yi ci njëkk raxasam nga idd ngir xotima war a leef na ko wala nga ne idd xotima ba war a leef na ko leen nag boo fàttee ab digg ci sa cangaay wala ab cër boo ko fàttalikoo ba dem def ko it bu fekkee jotoon ngaa julli la nga julli woon baaxut ndax day mel ne julli woon nga te amoo lu mat te cangaay bu manqué du baax kon bu fekkee da ngaa sangu woon cangaay lu manqué daal dem julli gannaaw na nga ne ah yow kat ab digg sàngam péyitoon mbaa cër sàngam raxasoo ko woon kon na ngay dem raxasi ko boo dikkee na nga julliwaat la nga julli woon lépp ndax ba ngay julli loolee boobu fekkutoon nga am cangaay lu mat way ni yëkkun dem dana nekk mu wax xiral xasli di aji yeexe raxas ga la dun zëkkëri yi fa ak fàttalikoom fa zaka loolee buttalaa nun yàqu cangaay la yaa inu boobu dana gaar bi ne gaar nag mooy feeñ rek daa wax ne bi la nee boo fàttee ab digg mbaab cër dawal di gaaw raxasi ko saa yoo ko fàttalikoo soo ko fàttalikoo ba noppi nag bàyyi ba mu yàgg te demoo raxasi ko ci ngaay lépp day yàqu nga far tàmbaliwaat mel ne ku sanguwutoon daal di sanguwaat bu wér-wér laakin na maa tujj si waaye dana ko doy nag musaadafatu xasli wudoo ihi fiiroon teeg raxas njàppam ma bilaa mu xaalafatin ci lu benn wutante mu ne waaye nag bu fekkee ne la nga fàtte woon ci cangaay la daa tombeeg mu bokk ci cëriñ jàpp yi te ba nga sangoo ba noppi jàppoon ba ngay jàpp far ko raxasaale ko raxasaale gi nga ko raxasaale léegi ci njàpp mi doy na sëkk wecc na raxas ba nga ko waroon raxas ca ca ngaay la mi ngi mel ne nga fàttee raxas sab loxo ci xasab bi ba ngay sangu mbaa nga fàttee raxas sa ndëggu wala fu mel noonu nga xam ne daal moom cëri njàpp yi la bokk léegi ba ngay sangu moom da nga koo fàtte woon waaye gannaaw gi nag jàpp nga te ba ngay jàpp moom fàttewoo ko raxas nga ko raxas ga ko raxas jàpp ma doy na sëkk dana wecci raxas ga nga ko waroon raxas ca la tas mu ab dog la fiimaa ca la nga xam ne tasiidu dana dolli ko mooy dana ëppee bii ci moom aljanaabatu janaaba xalal asxari ci toj mu ndaw toj mu ndaw mooy luy waral jàpp dong yem ci léegi nag dañ laa waxoon ne la bu fekkee jàppoo aaya nañ la nangam nangam ak nangam daa am loo xam ne nag moom bo amee janaaba dañ la koy aaya ko ci yooyu ñu la aaya woon ba nga ñàkkeem jàpp jàppal daal boo amee janaaba dañ lay aaye yéen la aaye woon ca ba nga amatum jàpp ba noppi dolliwaat ci yeneen yooyu ci dolli ko nag moom lay bëgg a wax wala ngay gis nag duxoolu masjidin dugg jàkka wala xiraatul quraan du caa génn jàng al quraan lil junne bi ñeel aji janaaba laa déedéet xam nga bu fekkoon ne njàppale nga ñàkk sañ ngaa dugg jàkka sañ nga faa toog sax boole ca waaye fi mu toll nii boo xasee amee janaaba moom li fekk ngay sangu doo sañ a dugg jàkka aw ci bunt bi jàll ca bee rek doo ko sañ jël nañ toog fa ba tey bu fekkee am am jàpp nga ñàkk da nga mën a tari alxuraan ci sa làmmiñ laal kaamil ba ngay wérlu sañ ci boo ñàkkeem jàpp waaye tari ko ci sa làmmiñ moom amoon ga ci sañ-sañ léegi nag boo amee janaaba dañ lay aayi sax tari nga ci sa làmmiñ xanaa illaa ka aayat ndara lu mel ne laaya wa aayatayni ak yaari laaya li ka taxaw wufin ngir lu mel ne léemu ngir lu mel ne muslu bi xëy na may leen jiwu fenn lañ may de mooy lu mel ne nga jàng benn laay mbaa ñaar léemoo ko mbaa nga doon wax ab àtte boo xam ne da nga ko doon àtte jàng nag laay bu mbaa ñaari laay tegtaloo ko ca àtte booba loolu daañu ko may moom boo fekkee am nga janaaba nga tari ko soxla am waaye lu loolu moom duñ la ko may. Hmm. man a tere na ku loo xaaju ñun jëpp aji xam waa xaaju ak jëpp aji jaamu yàlla li xaaju si ñel aji lot. xan mas si maayin walis laal am ndox baarid muy aji sedd ay yatiye mu dikkal azawjata soxna sa illaa baadama ahadda ndare gannaaw ba mu waajalee dañ koy firee ndare gannaaw ba mu xaroo waaye xaroo mooy waajal aalatan jumtukaay yusxinu joj dana tàngale bihaa ca moom maa am ndox mboolem ñi am xam-xam ak jaamukati yàlla yi maase nañ ci ne su fekkee ne yow mën laa laal ndox mu sedd boo sañee daf luy indi janaaba ni ki jotee si soxna lu may fekk nga waajal jumtukaay joo mën a tàngale ndox mën caa sangu te aajoo nga am ndox am jumtukaay joo ko tàngale door a am sañ-sañu def li waral amee janaaba bu war a sangu fara mel ne jotee sa soxna loolu ñëpp maase nañ ci laakin waaye nag isa taraahu na ko al ixtilaa mu gént fu maaxale yi di ko war bax daxoo ci gannaaw ba malaamun benn yaraange wala benn yeddeel ki nga xam ne mënta laa ndox mu sedd nag bu tëddee rek gént amee janaaba kenn du ko yedd day seet rek bu fekkee ne léegi fekkoon na ma jumtukaay ju mën a tàngale ndox mu daal di tàngal ndox mu sangu bu fekkee mënta laal ndox ma ndax bu ko laalee am ca ak wéradi gu ko dal mbaa wéradi gu ko daloon yéex a wér ak demee noonu kon day tiim rek noonu bàyyi nag ba mën a am lu mën a tàngale ndox mbaa naaju tàng ba mën a sangu waaye da nga gént la rek moom loolu yàllaa koy dogal bu muy tëdd mëntoon a xam ba xam dina gént bay amee janaaba bay waajal lu muy tàngal ndox mbaa dara ay jote gi soxnaam nag moom xam na ko kon bala koo def moom na waajal jumtukaay ji nga xam ne ci lay tàngale ndox ma faslu li ab dog la fi tayammum mi ci tiim musaafir aji tukki saara ji dox na bi xëyri maasiyat jul ak mooy loxoo ñal na ko tayammumun tiim zamaan tamsiyati ci jamonoy dox ga yeena koo xam ne tukki tukki boo xam ne ayut tukki ba tax koo ñàkk ndox kon farataam mooy tiim te sañ naa tiimal naa tiimal gépp tukki ba di tukki mooy yàlla nag moom farata kese lay sañ a tiimal waaye du sañ a tiimal naafila kon loolu moo teqale moom mi tukki ba tukki ba tax koo ñàkk ndox la muy sañ ak lamu mu sañuta tiimal wa mislihu am ke moom la al maridu aji tawat ju góor wal maridatu ak aji tawat ju jigéen li kulli naafeet ñel gépp la aw faridatun wala gépp farata ba tey nee ko am amee tawat joo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne boo jëfandikoo ndox mi rek tawat dal la mbaa tawat jël daloon yéex a mbaa mu gën a metti moo xam góor la moo xam jigéen la xam na ko ci bopp mbaa docteur bu xam faj wax na ko ko kon kooku day daal di bàyyi ndox mi tey tiim moom la wal xaadiru aji teew ja ak saxiixu ji aji wér lil fardi sañ naa tiim ñeel farata itaa xaafa ndéem ragal na xorooja waxti xaa génn waxtoom wa lil xudri ngir ngànt la za lile wala za ak kile lil xudri ngir ngànt la daa wax ne yow bu fekkee yaa nga fa nga dëkk tukki woo te it nga mën ngaa jëfandikoo ndox xanaa kay ñàkk ndox rek moo la tax di tiim kon de yow farata mi mënta ñàkk dong dong moom ngay sañ a tiimal waaye doo sañ a tiimal naafila niki bu fekkee daa nga julli yoor yoor keroog doo mën a jekki-jekki daal tiim julli yoor yoor bu fekkee daa nga dawalal lu mel ne tisbaar bu tisbaar jotee da ngay tiim rek julli tisbaar waaye doo mën a tiim dawalal tisbaar bu fekkee daa nga dawalal takkusaan ba tey doo mën a tiim dawalal takkusaan moom daal la ngay mën mooy tiim rek julli farata ja mënta ñàkk na nga takkaale foofu nag ne saa yoo xam ne waxtu wa xat na ba boo fa nekkee di sangu farata mbaa ngay jàpp waxtu wa raw la doo ci am sax lumatu matub kon day war day war nga bàyyi cangaay la bàyyi njàpp ma daal di gaaw tiim julli farata ja am cab rakk bala mu laa raw ni ki nga biddanti rek naajee yeewu xool jant bi bëgg fenk yooyu jamono bu la wóoree ne sangoo la war waaye xëju fi ba jàpp la war xam nga ne ndegam sang warut ndegam sang waru la jàpp moo lay war waaye njàpp ma sax xëju fa boo ko fa defee doo amub rakk waxtu wa da ngay daal di gaaw rek kon tiim daal ci amub rakk man nag tiim moom daawuma ko def faaw damay jàpp ba faaw damay sangu ba waxtu raw la nga am bàkkaar bu mag